merci beaucoup amis téléspectateurs tey nag laaj bi leen rek la quart de finale yi ñëw na am na ñaari match yoo xamante ni dafay am suba ci àjjuma gi ñaari match yi ban la Argentine Pays-Bas ak Brésil Croatie loolu lay laaj nit ñi ñu wax ma ñoom seen xalaat ci équipe yooyu kon nag ñu dem sëñ bi na nga def. waaw maa ngi fi rek. maa ngi lay ziar. maa ngi dellu ziar bi wér. waaw ñaari quart de finale yi loo ma ci mën a wax. mais Argentine de kan Pays-Bas. Argentine Pays-Bas Argentine Pays-Bas Argentine moom laa gis. pourquoi Argentine. parce que Lionel Messi moo tax. waaw. est-ce que loolu ngir faral Messi rek. non non faruma ak Messi. Hmm. waaw Argentine yow pour yow moo mën pays parce que Argentine lu muy football Pays-Bas du ko du ko football. Hmm. waaw loolu laa gis. ñaata nga gis pronostic. non mënu ma wax score nag. mais Argentine mooy door mooy dóor waaw. Argentine Pays-Bas moom Argentine laa gis de parce que Argentine ñoom moom ay bañkat lañ quoi hmm. nu ñu nu ñu commencé coupe du monde moom baax na quoi te Pays-Bas moom mooy loolu suba moom. Argentine laa gis mu gagné. non match su wey qualité de jeu qualité de parce que Argentine lu muy jeu kii du ko jeu Pays-Bas waaw qualité de jeu bokkuñu man kii laa gën a gis quoi nan la Argentine laa a gis. léegi nag Brésil Croatie. Brésil Croatie Brésil. parce que Brésil ren équipe bu mu indi nii dafa yéeme. waaw moo tax ma ni Brésil. ah Brésil Croatie ah pour man Brésil mooy favori quoi Argentine kii nii Argentine mooy favori foofu tamit mais football dafa doy waar ku nekk mën naa gagné sa morom xam nga waaw mais moom Maroc laay supporté quoi ah, moom laa bëgg mu final incha allah waaw ah, moom Brésil moo doon équipe de waaw ah. ñaar la Brésil moo doon équipe de ñaar la moom suba moom dina de hmm. mais Brésil dina ko dóor mooy qualifié waaw kon yéen daal yéen boo dem qualité de yi bokkuñu qualité de jeu yi bokkuñu façon nag nag lañ ñàkk bokk ndax rythme yi rythme yi bokkuñu ay Amérique du Sud la ñoom ñu li ñuy joxe ñii di européen du ñu joxe loolu. Brésil moom ah gëm naa ne moom dina gaye waaw Argentine tamit dina gaye mais final bi moo gis moom ah Brésil Argentine lay doonaat rek. na dem final ba jël coupe bi waaw. Ah, loolu laa gis moo kii Argentine. Brésil Argentine Argentine waaw mën nañ dem final mën nañ dem final. may li ma bëgg rek mooy. nga woyal ma hymne national bu Sénégal. Pensetu Vocora Frappé Balafon. le lion rouge a le don de la boue, le don de la d'ici par les ténèbres, le soleil c'est notre heure. Yëkkati Le seen soleil c'est notre espoir, rebouffé, voici l'Afrique assemblée, fibre mon cœur fer, épaule contre épaule, mépris que fait, le Sénégal est debout, unis sur la mer et le source, unis salut Afrique fait Pensez tout vos corps, à frappe les fond. Le lion russe a rugi, le dente de la veau, Le se de d'ici dissipe les ténèbres. Soleil sur notre terrain, soleil sur notre espoir. Debout frère, voici l'Afrique rassemblée. Fibre de mon cœur est vert. <laughs> Comme tes eux, Marocain là quoi waaw sama yaay marocain sama papa Sénégal pese tout fogora frappe les balles faux le lionus nous arrosi le se fera fe. fogora frappe les balles faux le, le lion rouge arrosi le bon se délasser le bon se délasser si tu l'éternel wala soolay sonoteer soolay sonot espoir. Croatie ñaata lay gagné Brésil. soo daal meedul deux. Eh. billaahi deux un. Eh. j'espère que ça. avec Dieu. Eh. j'espère que ça. tey lii laa leen indil gis ngeen hymne national xale yi mën nañ ko wala mënuñu ko war nañ ko dem jàngi wala waruñu ko jàngi jox nañ seen pronostic ci match yi ma bàyyi leen ngeen analyser jaajëf.